leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi jàkkaarloo waat ak ñun di ñu seetaan ñoo ngi am mbégte di ànd ak yéen fii ci jataay bi nga xamante ne bii eh, sëriñ Amsatou Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad dana ko yëkkati mu jëm ci wàllu dëkk bi ak ci biir dëkk bi te lépp di eh, xotti war may dëkk bi di Touba eh, loolu ku xam ne ne taxawaay bi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad amoon na ko ci mu jëm ci wàllu sàmm li nga xam ne mooy ndono li waaye itam defaraat jikko yi nga xamante ne bii eh, moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne bi ko yàlla yónni ngir mu defaraat mottaliwaat jikko yi rek moo la woon te ku ne xam ne ne dëkk bi fi ñu toll jikko yi na waaye itam nag jëmm itam lu ci bari yàqu na te dafa mel ne ñi nga xam ne ñoom lañ koy sàmmaloo itam xamuñu li tax ñu andi ci dëkk bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu bokk julli yëpp di bokk taalibe rawat nag bokki murid yi dëkki Touba xanaa di wax wax ju gàtt rek te tënk ko dafa am jamono yi dëkk bi am po dafay bari woon lu mel ni tëgg ak fecc ak kar ak naan ak yu ñoom ba am jëmmi jamono benn julli ajjuma boo xam ni sëñ Abdou Khadir xamul lu muy julli ndaxum tëgg ba noppee waxtaan ceeg sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Lahad yëkkati kàddam wax ak njabootu sëñ Tuubaa gépp booba ñi fi nekk sëñ Saliou sëñ Abdou Khadir sëñ Soyibu sëñ Mourtala ak moom ñoo fi nekk mu woo itam sëñ Mbàkke Madina nga xam ne moo koon sët yi wax ci ak ñoom doo ko yëkkati kàddoom tere la muy tere muy dox ba nëgëni loolu moom jeexoon na fi tàkk bu jeexul tam wàññi ko woon na ndax euh, lu yàlla tere woon de taxul nit ñi ba ko yonante bi tere ko taxul nit ñi sëñ tubaa tere taxul nit ba sëñ tubaa tere ko nit ñi di ko nëbb mu kon alhamdulilah gannaaw ñee na waaye ñu ngi koy nëbb rek ci yàlla léegi nag dañoo weesu nëbb dañ koo fisal léegi ba fam nekkoon lu ko rawaat am ci dëkk bi te loolu nag day xotti arma sëñ Abdou Lahad nag ba mu loole daf koo jox procureur Jurbel bi kuñ masaa jàpp fii buñ la yóbboo boobu gendarmerie fi nekk gendarmerie dañ la fay téye ñetti fan yóbbu leen njëriñam bu fekkee da ngaa màndi ñu tëj li 45 jours booy gën ñëwaat la bu nel boo tox ñu tëj la fukki fan wala juróom benn fan nga fay mille ñu doog laa bàyyi tëgg moom booba kenn defatu ko daa tegoon ci ci bi ay nit ñoo xam ñooy saytu lool ba mujj mu doog indi andi gendarmerie ba muy andi gendarmerie tam Abdou Diouf la ci waxtaanal bëggoon a andi police Abdou Diouf ne ko police day yàqu dëkk andi gendarmerie gendarmerie nag jàngal nañ leen yar nañ leen xam nañ fa ñu war a dafa la ñu yem police nag ñoo xamul dara yaree deku réew xamadi na ci dëkk bii nag di xotti ormay satiri sëñ Tuubaa yi daaw ci réew ci ci ci ci ci ci couvre-feu bi jàkka dem nañu fekk fa dóor fa ay nit ba leen loolu police ko fi def di jàpp ay nit di dugal ci maali oto di leen rey kon police day yàq dëkk loolee ma waxoon Abdou Diouf waxoon wér na bi ñu leen fi indee dañu fi indi tere lu bon lañ leen waaye indee leen fi nag toroxal nit ñi te ñoo jàq toroxal nit ñi ci àdduna kenn yeesu coobaan mii fi nekk wax na wax joo xam ne dara jubu ki dara du ci dëgg te dara wéy ci ndaw nag loo xam ne su fekkee ay supérieur am ñoo ko digal lañ ko def ndax ndaw sacrifié nañ ko ndax laal na foo xam ne aude sufa laal dëkku sëñ tubaab yi bu dee murid da cee war a maan bu dul murid yoon wuru cee nekk ba mu waxee naka sudul noonu la mu ko fenn te du ci dëgg yem ci liggéeyam fii liñ leen feneen ñun ñëpp xam nañ ko carte gi mi ngi ki dëkk bi sàngara si mu ngi ci dëkk bi toox mi ngi ci dëkk bi te ñoo xam nañ fa ne fa ñuy wax buntu Pikine ci yoon Daaru Musi ña nga fa demuñu fa attaqué leen mbaar ya ña nga fa bari fay bëgg dee te xam nañ ko demuñu fa attaqué corniche bii ci wetu jàkk si Cheikh Saliou ña nga fa kër soxna Ami dem gi si Xaadim mu sawa nga fa marché bii ña ngi fi gaar mu ndaw ña nga fi te am na ku ni ma te wax ju wér la nee na ñu ngi daan toxee ci daari kaamil ci ci ci ci jullikaayu et bi ak péncum sëñ fa lañ daan toxee bi fi làmp yi nekkee ñu leer léegi defuñ ko ñu ngi koy defee diggante kër sëñ ak kër sëñ Abdou Lahad nag boo nu porte boo nu jàppee boo nu boo nu kalaamee ak police police dañuy woo buñ leen fa fekk wala bi sàngam dañ fa ñëw buñ leen fekk wala buñ leen fekkee na ngeen daw te ni boo ñu jàppee ba yóbbuñu itam booy jam ñu ñu ñu bàyyi ndax suñ soxlaa téléphone bu seer nuñ lay woo ñu wutal leen ko suñ soxlaa téeméer ñu ko si jox leen kon ñoo ngi ñoom ànd ak nag nga xam ne sëñ bi da koy tere te lu luy mën a nit wama nit yóbbu ko sawara lay lool kon ku ne war na koo bañ waaye ñoom li ñuy tere nit a ko tere oto yi ne ci dëkk bii di ay rib yu ci ëpp ñoo ko moom kër yu bari ñoo ko moom te dëkk bi leen ko may futbal kenn terewu ko loi terewu ko ci lañu wax ñoom waaye sëñ bee koy tere dëkk bii di Touba parité fa ne ñu ngi koy def ci àdduna bi parité amul Touba lu tax kàddu sëñ bi maire yi bi ñu koy wote maire yëpp dañ ko wote Touba wote wuñ ko ndax la kàddu sëñ bi li yàlla mooy sëñ bi Touba nag ba noppi nekk nekk nekk nekk titre foncier bi sëñ Touba li mbooloo mi bëgg kàddu sëñ bi rek mooy mooy kàddu ndax mba mbooloo mi kàddu sëñ bi lañu dëgg moo tax seen loi kàddu sëñ bi kon mooy loi loi mooy lu mbooloo mi tënk ànd ja loolu mooy luwa ci ñoom mu ne nag sunu loi mooy kàddu sëñ bi su jegee ñëw fii nag bëgg bëgg a suufal kàddu sëñ bi indi kàddu tubaab yi nga xam ne ñoo ko fa teg te jànguñu xamuñu gëmuñu yàlla te yàlla ne ko teewul ci li yàlla alxuraan ab naafeq nga ab kàccoon nga ab saay-saay nga kon ñoom ay kàccoon ay saay-saay yëruwuñ jànguñu bu dee ndaw nag sacrifice ko buy wax na wax lu xam te xam war a yem du dee ci dëkk bi am fi teraanga am fi ñeenti lu ne mu am ko te amu ko woon. bëgg a taxaw fii nag di yar waa dëkk bi te yor leen ci alxuraan yor leen ci diine ba muy wax ci diine xamul lu diine tere xamul lu diine bañ na fam xam tere yi nag moom mënta tee ba mu wéy ndax ñoom état nañ continuer lii nag xilaaf ak sëñ Tuubaa la ba mu mel ne moom dong lañ ko xeex moo lañ ko tus ñaa ko doon xeex nag ñoo moo leen gémm ñoom policiers yi ndax lu sëñ bañ ñu ngi koy def ci dëkk bi bëgg a sobentel kàddu ko sëñ Muntaxa bëgg a sobent kàddu ko njaboot sëñ Tuubaa te nekk ci dëkk sëñ Tuubaa loolu dëgg du yoon ministre de l'Intérieur barki démb téléphone naa ko jotuma ma bàyyil commissaire tontoogu ma toog nañ ñett yoon wax ci lu mel nii même président toog nañu wax ci kon te ñoo xawuñ xam nañ li ñuy def nañ rek ci kudd ñu yoof leen ci gayet mooy la am solo wasalaam